Cheikh Bara Ndiol Kana Basse Cheikh Bara Kana Omar yaa ngi ci géew bi Cheikh Omar nekkal ci géew bi Ousmane yaa ngi ci technique bi ma ne ko Ousmane nekkal ci technique bi Cheikh Bary Canabasse ndaysaan yéen ñuy topp ci Dakaractu yëpp bëgg naa leen wax naa leen ne fii la reportage bu neex bi xewe de loolu moom maa leen ko mën a yëgal image su leer tamit fii la son bu baax bi fii la kon lamb ji fii la Dakaractu arbitre soufflé na combat bi huitième combat de la soirée Cheikh Bara wane ginnaaw Canabasse ngeen jàkkaar lool Canabasse ca Tambay la jóge Cheikh Bara Canabasse lin jàkkoo combat baa ci géew bi ñu ngi lewtoo de pied gauche pied droit wala ñaari gauche wala gauche droite ah way Cheikh Bara sànni na شيخ باري خيخات نانيو خيخ خيخ اي كان با تورنا شيخ باري كان با سانغي خارو سي كوم كان با سانغي دور مي خولول كان با خولال شيخ باري دالاي دور نغا دانو اواي خولو دانو نا داربيت دانو نا بو ياغا ياغا ياغ دور نانكو بو وات اواي كان با سلي موي خيخ باخول انا با فاي ana Pape Faye waaye yow kii li muy xeex baaxul ah way day door te du xool ana Pape Faye waaye yéen Pape gars yi jëlal ma caméra bi gaaw laa ilaha illallah eh Cheikh Omar day dóore te du xool booy dóor da ngay xool boo xoolee Kaana Bass daa topp xeex bi rek di dem dox leen ñu ci li ñu naan yéen ah way Cheikh Bary Cheikh Omar ma ci géew bi ci géew bi Cheikh Omar ah way ñu ngay félicitante Canabasse li mu xeex baaxul suba baaxul ngoon mënoo xeex te xooloo li ngay xew di dóor rek di dem mam mi di dem ñu di la xool di la remise ba ba ngay daanu laa ilaha illallah toppal ma loolu Cheikh Omar xale bii garaaw na de Cheikh Bari mi na war de defal lu la neex xool kot si bi xool kot si bi yoro waaw waaw xool kot bi eh ndaw defal lu la neex kot maa bég ci kot bii kot si moom waaye yow Cheikh Bary mii da koo dóor mu wàcc loolooy dóor nga daanu Cheikh Omar booy xool booy xeex del xool yokkal ma lii Cheikh Omar booy xeexati del xool Canabasse xoolul Cheikh Bara di ko xool kii am njool la de gis nga kii kii am njool la hey waa kii fu mu jëm waa yow Cheikh Bara mi yéen hey laa ilaha illallah waa yow civière bi nag booy wutul ci géew bi dara sapeur yi dinañ la moytul sapeur yi moytul sapeur yi booy tooñ baaxul Babacar ngay wax ak moom yóbbu leen kii waaye du leen yóbbu Cheikh Bara mi mu ñibbi président arbitre ngay wax ak moom Babacar Diop ah way Cheikh def nga yëfi tay lu ci kenn li nga def kenn xamu waroo def loolu Cheikh Bara waroo jël civière bi bokku ci